yi da ngeen di def nii tuuti rek ngeen wax ngeen xaw a def nii tuuti rek bu yaatu. jërëjëf yaay Fall. ndax ñu gis. jërëjëf. gars yi écarté leen. ki ñu boole ma ak yow barki Demba Ndiaye la ñu boole ma ak yow. nga ne ko man damaa bëgg Ndeye Gueye te yàlla tax. ki ma boole yow di di journaliste bu mag di caméraman bu mag boole ñu ma ak yow. lii nga ma defal surprise gënu ko fort. waaw. ndax lii photo bi mooy suma première photo bi may soog a sëy Papa Boy Djiné barke Serigne Bamba la photo baa ngi nii suñu première photo nga defal ma ko surprise merci beaucoup kii nag moo dàq seet Sénégal kii taxaw yaay Fall waaye damaa bëgg man man yow léegi loo bëgg li ma nar dund ci ay at li nar yokk ci samay at yal na ko yàlla defal sama borom kër bu baax bii moom yàlla boole leen ko yal nañu ko yàlla boole. waaye du ma gërëm mukk te gërëmuma sama rakk Cheikh Gueye. waaw waaw. billaahi wallaahi wal kitaabi. yaay Fall li nga def dafa foor ku ñàkk ki ñaan ku baax la barke Sëriñ Tuubaa ku mën a seet nga it. billaahi wallaahi yàlla sa jàmm. te loo wax téere maa jox enveloppe lii bis na di yaay Fall. in ma joxaale la beneen bi en attendant beneen ban yaa faal jërëjëf dama bëgg nga toog tuuti rek dama bëgg nga toog tuuti bu ne maa ko mës a indi tànn biir tey la mës a dugg tànn biir dama toog yaay faal dama toog ngir jëmi maam Cheikh Fall cinq minutes rek bul dem ngir jëmi sa jee yow boo wootee nii rek a demee xam nga lu tax da ngaa am ñaanu waajur kii nag ko am ñaanu ko dee xool nag ko naan càkk ajaa puy la ne woowe sa yaay ma nga àjjana di naan meew barki Seydina Mouhamed sama diggante ak yow kon sambur ba seize anglais barki yonent bi dema siri sa jeey alaaji abi puy la ne woowe ñàkk suma na yow bu ma dee wax ci yow Ndeye Gueye bi ma xër moo tax heure bu ma jiw mee ñu bind ko tey ma ci yow dëgg ndax a ma yónni ci yow nag aas ah, ma ñëw bu ma dee wax kenn ko dee de xamoon ki ma yónni bu xamoon ki ma yónni barke Seydina Mouhamed ku mu yónni nga daw Adja yónni aawa xaadim béy borom Amerika bu ma yónnee ci yow war na ndax xam nga lu tax kër ngeen jàpp ko muy jéegu puso Adja ku tëgg bés rek ku tëgg loola am be morsoom ñëw na barki Seydina Muhammad waaye gay yow nii lay mën a demee boo dëggee mu ñëpp ay arrêté ndax xool mooy nit ma ñàkk suma xool mooy doomu aadama am na nu mu doon demee tey ngay mës na séddee loo bëgg am ko ndax xam nga lu ndey door téye nga ci Sénégal sa loxo yaa ngi ci téye say famille uf ñëpp barke Seydina ma yónni nag naay bu ma waxulee ba pare beneen sabar dootu dëkk wala déggoo ma déy ci yow bu ma yónnee damay daw du ma taxaw enveloppe bii ma suul sama nday li ci nekk lépp boo ko daajee xam ne Adja yónnee na ci yow ndax jeeg kii ma yónni te du jeeg bi jeget du emprunté benn jeeg ma sawar Malick borom ndar chéri xaadim dégg damaa xër ci yow ba bu ma jàkkaarloo yow damay lool. nooyul ma gën a gën nooyul ma gën a gën léegi-léegi maa ngi doon jàkkaarloo yow tey ñu xamante ba léegi. je daal. dew ma dikkuma ndax li ni fàqat ci man ku mu ne fàqat ci yow boo desee dara sax doo gor ndax nday gàllaa ji koo gis waaye dereetama yëngal dëgg la mbuub sama mag jigéey ma si la isa jëy Fatim Penda maa ñaay la sukaa bi ñëri mu ma génne mbuub waxal yaa ma ko ji nag waxal moo tax ma génn di jéggalu ñëpp ñi fi xewle te ñëwuma te ku ci nekk xewle na yëgal ma waaye mënu ma woon a dem ndax li ma ñàkk dafa foor muy sama yaay ma war a defaraat sama toogaay waaye yow boo wootee ñëpp dinañ génn xam nga lu ñu daan wax tëdd leen man mun naa mel lu ne waaye yéen du ngeen mel lenn bu ñu nawee Sénégal am na ci part de responsabilité ku gërëmul nit doo gërëm yàlla déedéet man de maa ngi lay gërëm di la sant def nga ci man jom des nga ci man fulla des nga ci man ngor ndax bu dul woon gore mën ngaa jënd àdduna li ci biiram waaye dangaa gore loolu gëj bu dul woon gore mën ngaa jënd àdduna li ci biiram waaye dangaa gore lool bi may wax seede si mënta paase allah ji li wi ngay dugg si nga jàpp ko ba mu dëgër léegi dama daan fanaan sa kër nga xëy dépense wu fukki junni ba ma ko njëkkee wax Allemagne te toog sama wet dani ma loolu mënut a nekk nit du dépense cinquante mille waaye ba mu dawalee famille ñaari weer xam na ci dara. maa fekkee la police bëgg maa daan yeewu dox ba kër Paa Louga yóbbu dépense am maa góogaan yi. ñoo ànd démb. ñoo ànd démb tey soog a ñëw. ngay sama yaay di sama xarit bu ñëpp dee wax ma ni nemm mbaa duma xaru damay jóg taxaw yaa ma génne bu du woon yow barke du ma taxaw seen du ma dem ci kenn damay toog jooñ ko waaye keroog ba ma sëngee nee bambi yow laa njëkk a gis nga bàyyi sa lépp ñëw toog sama wet jooy le bambi nga nekk doom ju bambi bëggoon nag ci biir xoram tey bi man bi ma wootee ñaanal ci barke sëñ mi ma bëgg sama sa bi yàlla boo ci doom doomi jinne sax jinne ko doom sa sëy bi yàlla boo ci doom te lépp loo am ko muurloo ndax yow boo wootee ñëpp dikk boo demoon ba boo wootee ñëpp new ndax yow la Ndeye Gueye li boogaa wax léegi bu dee drapeau bi étoile baa nga ci digg ba te mooy fameem da nga leen a së marqué empreinte am may Ndeye Gueye loolu lee jigéen ju mën góor yow lu ma tëgg nga ñëw waaye sama doom sama rakk dafa toog na li ca kaw muy njooro maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp bàyyil noonu bàyyil ngeen ma may léegi foofu dama lay fekkee Awa Balde bi jar di jar dëgg ba mu jaree yow la woo yóbbu la ca mbuur géej kon insisteel mook njooroon waaye dama ni Awa Bal euh, kii Fatou Waré dama bëgg ngeen may ma tuuti rek bu benn sabar tëgg ngir yàlla ndax ki may waxal dafa ma ñor caméraman yi dama bëgg ngeen jonkan ngeen dégg ki may waxal ngir yàlla ak jëmmi Seydina Muhammad fecckat yi ngeen baal damay wax rek ñu dellu tëgg dama leen ñaan rek ngir yàlla rek ngeen jonkoon ndax ki may waxal su may wax ak moom cër la dégguñu mbokkum ndeyum ndey saaxo mbokkum ndeyum yagana mbokkum ndeyum tafa saaxo sama baay juróoma sànni ma juróoma beddi ma juróoma xoqatal ma sëy rek nga ma sant yal nga dund ba fekke sama njariñ ci barke Seydina Muhammad yal na nga dund dund ba ma lay teral ngay njoora